di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala boo lañu jéggal ñu ñépp ci weeru koor gi mu nangul ñu ko lépp loo xamante ne jaamu yàlla la mu may ñu ñu def ko ci anam bi mu gëne te mu may ñu tamit ñu gën koo jegeñ naka noonu mu boole ñu ci ñi nga xamante ne daf leen di jox cofeelam maanaam sopp bu mu sopp mu nekk bi gën a kawe mu nek mu jox len tamit ngëneelam gi nga xamantene ne ak ngërëmam gi nga xamantene ne moy mooy mattali lépp ñetti jotaay nga ni ñetti euh, koor allah ñuy def tafsirul quran ci suratul ma'arij te moom moy yoon yi nga xamantene moy yoon yi ñi jaar ngir yegg ci bur yalla subhanahu wa ta'ala mu nekk ay mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa daf leen a tudd te bu ñu xoolee comme niñ ko gise woon ci jotaay yi weesu euh, mooy ne maari ji dafa nekk loo xamante ne yéeg gi du masalaan comme ni ko ñu bari foogee nga xam ne day mel ni maanaam euh, benn yéeg la nii rek ci kaw mbir mi demewut noonu maanaam ay yéeg la yoo xamante ne borom subhaanahu wa noonu la bindee lépp maanaam yéeg gi day def nii maanaam day nekk loo xamante ne day mel ni lu am xeetu euh, wër ak wërgal comme li nga xamante ne noonu la ñuy gisee fusée yi bu ñuy yéeg noonu forme boobu tam la def et que yi biddiw yi noonu la ñuy dawee trajectoire yi nga xamante ne moom lañuy jël maanaam mooy fi ñu yoon yi ñuy jaar muy biddiw yi muy kawaaki bi te mooy planètes yi ñoom ñëpp noonu la ñuy def biddiw yi mooy an-nujum ah, kon loolu da ngay gis ne borom subhaanahu wa noonu la ko defee ci anam googu nag saar bi noonu lañ ko tëggee tamit maanaam borom subhaanahu wa taala daf ko feeñalee ci anam goo xamante ne maanaam saar bi day jugee ci yenn mbir dem ci yeneen mbir maanaam nekkul rek loo xamante ne nuñ ko mën a mooy dañ naan dafa linéaire maanaam dafa jël benn rëdd rek rëdd boo xamante ne. Euh, benn kese la te benn anam rek la feeñee déedéet dafa nekk loo xamante ne day ñëw di wax masalan ci jàlbeen bi muy wax ci wàllu yawmal qiyaamati wala euh, mbugal bi nga xamante ne moom moo mën a dal yéefir bi gis mu wax ci lu mel noonu ginnaaw gi mu daal di wax ci ne malaaka yi ni ñuy yéege mu daal di wax tamit ci ni nga xamante ne noonu la yéefir bi ci boppam maanaam di mébéte bis boobu يوو يوند مجرم يوم اذن لو يفتدي من اخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن, ومن في الارض جميعا ثم ينجي لا خامتاني دي ميبت بيس بوبو مو يوم القيامه ن اكا ميخون مونا موتشي تي مبوغلو بيس بوبا تي bu fekkonté né dañ ko wéccé akhi mbokam ak ay andalom yu jigir wa sahibatihi wa banīhi ak wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an ak mbokkam di askanam bi nga xamante ne ñoom ñoo ko daan aar fi nga xam ne fa la féetale woon boppam muy ab mbooloo moo xamante ne ñoo ko daan euh, euh, ñoo ko daan téye te ci ñooñu la daan dellu di wéewu waaye mu ne nañ ñëpp wa man fil ardi jami'an ak ñi ci kaw suuf yëpp su ma yoon ji ci topp mu wax foofu ci wàllu safara ak ni nga xamante ne noonu la mel gisoon nañ ko ci suñ biñ ci tollee walillahi alhamdu wal minna ginnaaw gi mu am mbir leeral gu yéeme goo xamante ne moom la borom subhanahu wa ta'ala def ci saar bi ci di leeral nit doomu aadama ndax doomu aadama ci jëmmi boppam mooy ki nga xamante ne moom mooy dem ci yoonu yàlla waaye doomu aadama ci jëmmi boppam moom mooy ki nga xamante ne moom moo nekk ci trajectoire tout temps en permanence manam amul benn jamono bo xamantene doomu adama nekul ci ben trajectoire foo fek da fay dem motax même bu taxawé manam mooy ko avancer wul en fait mi ngi reculer mi ngi delu ginnaw loolu moom moo bi nga xamantene mi ngi wax ci doomu adama wala bok wax na ci doomu adama di wax ni nga xamne non lañ ko melale mu joxe ay melo yo xamantene doomu adama naturellement day faral di mel non te kep ko xamantene ne vraiment tarbiyawul yarul ci lere alquran ak sunna yenen tibbi alayhi salatu wassalam faw foofu ngay mucc faw wala bok faw nonu ngay dekk te lolou xolal kula neex demal ci kula neex duddul fu la neex dëkkal fu la neex melal nu la neex amal lu la neex jikko jooju faw day ne ci yow mooy innal insana xuliqa halu'a idha massahu ash-sharru manu'a wa idha massahu al-khayru idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a doomu aadama naturellement maanaam ni nga xamante ne noonu lu bindoo ak doyal yi nga xamante ne moom moo ne ci moom loolu moom moo ko yóbbee mu nekk koo xamante ne dafay gaaw a saalit dafa am xeetu tóoyi man bu nekk ci moom man ak tóoy bu nekk ci moom dafa nekk koo xamante ne ak jaxasoo akub doyadi akub woyadi akub euh, di fàtte li nga xamante ne moo ko tax a jóg ak lii cosaanam dëgg-dëgg ak mboolem mi nga xam ne ñooy wërwërloo ci yooyu loolu dafa nekk loo xamante ne lu ko yomb la dafa nekk koo xamante ne comme ni ko alquran waxe idha massahu alxayru manua idha massahu sharru jazua su euh, lu bon bu ko dalee lu mu tuuti tuuti rek nga gis mu nekk koo xamante ne day mel ni maanaam day day day day day day day mel ni ku ñu làpp maanaam day yaccax ndax maanaam day nekk moom lañ naan abattu day abattu maanaam loolu moom moo tax doomu aadama saa yoo gisee mu am yenn mbir yu xew ci àddunaam nii rek léeg-léeg maanaam da koy teel a mën a gis ci moom ndax bachari yéegi la moo tax loolu mooy bachar ndax al bachar euh, maanaam mi ngi jóge ci al bishara maanaam ndax bashar mooy koo xamante mooy loo xam koo xamante ne eh, bishri gi maanaam mooy soo ko gisee soo gisee rek état yi muy nekk ci biir day jeex am jeexital ci biti nga gis su fekkente ne dafa am musiba bu ko dal nga gis mu lompoñ boo gisee xam ne kii kat nekkul comme niñ naan sawaay daal tey nekkul ko nga gis ne nekkul Euh, nga gis jeexital yooyu di nekk ci moom di ko dal te lenn yóbbu ko lu dul caractère boobu noonu nekk ci moom nga xamante ne psychologiquement dafa gaaw a abattre doomu aadama noonu la mel lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër mbir mi day am jeexital ci moom waaye wa iza massahu xayru manua su fekkee yiw muy alal muy am-am muy mën-mën muy sañ-sañ muy daraja ak lu mu mën a doon moom mënoo am day xañaati moom jàpp na ne daal yu baax yi moom rek a ko yelloo dangay gis muy gaaw du bëgg li mu am ñëpp am ko du bëgg li mu mën ñëpp mën ko du bëgg bokk du ko bëgg euh, loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa comme noonu nga xam ne noonu la bindee doomu adama sauf que wax na ne dafa am ñenn rek ñoo xamante ne ci jikko yu bon yi parce que yii yëpp après dañuy xëcc mboolem jikko yu bon yi nekk ci doomu aadama moo tax ngay gis psychologiquement doomu aadama di am yenn jikko yu comme rëy comme iñaan comme soxor comme nay parce que daf koy bëgg lu lu ne da koy bëggal boppam kese comme. Euh, di ngistal maanaam di bëgg a wan nit moom mooy kan valeur am moom di déggtal di bëgg suy wax nit ñi di dégg li muy wax di jox valeur li muy wax et surtout que euh, buy wax ñu koy déglu et que waruñu ko dagg et que suy wax euh, dañ ko war a jox considération moom mi nga xam ne mooy aji wax ji euh, muy bëgg tamit di am yenn jikko yoo xamante ne day waral ay xeetu ñaawteef ak mbon mbon ci ñëpp ba mu des ci moom nga xam ne mën na sacrifier ñëpp pour moom mu dund pour sa survie moom grawul ñeneen ñi grawul ay intéret bu taxawee intéret ñeneen ñi amuñu amul amul amul solo mais aussi mu nek ko psychologiquement lolu daf abattre de telle sorte que mom amul manam dotul ndax li jaadu wala wala ni ndax li ou la wala du mais mom limi bayyi xel ban valeur la mettre la meuna de parce que un problème psychologique la lolu lolu ñu nafsu nafsu psychologique manam moy xam nga day ego am mais day tek psychologie aussi motax ilmu nafs wala ilmu nufus la psychologie manam en français manam moy li aju ci bakkanu nit ki manam motax lay la nga gis ay yenn comportement yu nit hein, eh, comportement yu nit ñi di am expliquer do xam ndax la pourtant wala wala wala manam yow do meun comprendre ki naka lay réfléchir en fait mais c'est parce que problème yoy soko beugé set ci ndax problème xel la wala problème mu la wala problème yoy yëpp da ngay en fait problème bi problème bakkan la problème psychologique la manam psychologiquement dom aadama dafa am faiblesse boobu donc ce qui fait que ni faiblesse yoy sax dañ ko yóbbee ba nga xamantene ngir atteindre objectif yi ngir nek ko xamantene day mettre en valeur lolou daf ko yobbe ba manam muy muy def lo xamantene mais c'est totalement contraire ak mbir manam maanaam fay day contraire en fait ak li nga xamantene ne à l'origine lolou la waroon a don motax lek léeg muy jiital ay intérêt jambour ci kaw ay intérêt boppam te dara yóbbewu ko ko lu faiblesse psychologique bop euh ngay gis du nangu ne nit ñi ñi ngi def lii mais baaxul wala du noonu noo mais man du ma def loolu maanaam il suffit que mbooloo mi jëm fenn rek nga gis doomu aadama naturellement day am tendance à dem fi mbooloo mi dem loolu nag mooy de manière naturelle ba mu des ku borom subhanahu wa ta'ala day am tendance à ce que jàpp ne. ñii ñëpp munuñoo bu buñ buñ defee lii saway non bu ma ko deful non kon kon nit ñi dañ naan kon nit ñi dañ ba nga xamante ne même tey da ngay gis jullit boo xamante ne feebar boobu dafa nekk ci moom ci anam goo xamante ne nit ñi di ko gis muy julli moom loolu loolu moom àttanu ko maanaam tey masalan euh, bu nekkee ci circonstance yoo xamante ne euh, circonstance yu normal la këram la nekk jàkka ja la place bo xamantene ne bu làqatu la ne eh. lolou grawul mo meuna julli amu problème mais maadaama ni yeneen nit ak koy gis ci benen place te julli jot nak te warna takwal taxawal ah manam fartay borom subhanahu wa taala nga gis mom mu japp ne non lolou mom c'est que gars dañ lay gis après xam nga li ñuy wax do comprendre xamuloo lan nangam ki manam lolou manam doomu aadama day bàyyi xel loolu gis lu jaaduwul mu xam ne lii jaaduwul mu dem nekk ci loola parce que psychologiquement attanul bañ ko bañ a mel noonu attanu naka noonu day mën a nekk comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax laa yakunu ahadukum rajulun immaa yaqulu in ahsana an-naasu ahsantu wa in asaa an-naas Asatu. bu kenn ci rajulun immaa manam muy nit koo xamante ne danaan man mooy altoppe li ñu naan immaa mooy altoppe wolof altoppe la koy wax mooy koo xamante mu firi ko mu ne in ahsana an-naasu ahsantu su nit ñi rafetalee daal ma rafetal wa in asa an-naasu asatu su nit ñi ñaawalee ma ñaawal comme ni ko sama mbokk wolof yi di waxe ci dëkk Euh, nga fekk ñëpp def yaramu neen yow soo deful yaramu neen yow yaay dof bi wax jooju nekkul wax ju wér nekkul wax ju baax nekkul wax joo xamante ne ju ñu bàyyi xel la wax jooju waxu koo xamante ne ku am faiblesse psychologique la te képp ku ñu yar ci mentalité boobu yow yow yow yow rey nañ la am nga am nga am nga maanaam dañoo rey sa bakkan en fait psychologiquement nga faible moo tax nit borom subhaanahu wa ta'aala caractère boobu moom nga xam te ne moom la melale te te loolu moom mooy caractère centralu euh, saar bi maanaam buñ ñu ko seetloo dëgg-dëgg da gis ne euh, lépp ci saar bi daanaka ci loolu lay wax maanaam euh, yooyu lay décrire maanaam mooy li nga xamante ne moo aju ci doomu aadama capacité bi mu war a am ci. transgressé wala en tout cas jéggi jéggi xaal boobu bañ a nekk koo xamante ne day beew bañ a nekk koo xamante ne day yàqu ci anam boobu te ñenn ñi dañ ciy dem ba nga xamante ne dañ ci yegg ci niveau boo xam ne dañuy ne euh, maanaam dañuy bëgg dara maanaam ñoom masalan dàll bu mel ni moo leen neex yére bu mel nii moo leen neex mbir mi moo leen neex mais duñ dem mukk mukk mukk mukk def shopping maanaam dem dem ci marché yi wala mel noonu ba jënd liñ bëgg xam nga lu tax parce que dañoo am faiblesse psychologique ñoom dañ naan lii moo xew eh keroog diw nii la soloon eh keroog diw bii la am day dem pour jëndi leneen de mais moom bi nit ñi bëgg wala biñ naan moo nekk à la ñu naan moom la diw soloon moom boobu lay bëgg parce que tout simplement jom wala fayda fayda bi ko waroon a jox mu mën a am ne lii man sama tànneef la maanaam sama choix la man maa ko tànn loolu la dul amati fayda boobu lañuy rey ci moom doomu aadama lu muy gën di mag lu muy gën di dem lool fayda boobu di denc moom muy gën di bàyyi xel lan la nit ñi di xalaat te lool ku ci bëgg a xam dara demal ci diggante Kajoor ak Bawol ak Saalum ak Jolof léegi sax am na yenn génération ñu ngi tane alhamdulilah mais danga ci gis ñoo xamante ne euh, duñu am maanaam seen am-am dafa yem képp ci li ñuy dunde wala matul li ñuy dunde mais mu am ko am xew wala ñoom ñu am xew ñu attana teg seen bopp coono jël alal du bare bare bare bare def ko ci te sàkk ngërëmal yàlla taxul lenn bu du sax lu ñu bëgg a def lenn rek moo tax ñu def ko mooy jàpp nañ ne suñ ko deful dafa am ñuy wax seen ginnaaw te wax jooju seen ginnaaw psychologiquement gis nga seen bakkan fayda gii tax nga mën ko résister loolu lañu am kon doomu aadama dafa tóoy effectivement alquran ni mu wax dëgg la dafa lañ tax dafa tooy waaw kon doomu aadama kon mooy koo xamante ne su fekkente ne kon yiw daf ko dal nga gis lu muy gën di dem muy gën di xër maanaam muy gën di xër waaye lu muy gën di euh, dem tamit musiba di ko dal muy gën di abaatu borom subhaanahu wa ta'aala nag am ñu mu ca setti muy illal musallina ba mu des ñi nga xamante ne ñooy jullikat ñu ñooy jullit ñi maanaam ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo jokk ci borom subhaanahu wa ci suñu jotaay weesu tamit bokk na ci liñ ci gisoon. moom mooy bi ñu tàmbalee doon nañ wax ci wàllu julli wax nañ ci lu bari nag ci wàllu julli am na ci partie yoo xamante ne insha allahu taala dinañ ci ñëw ci jeexital bi walladhina hum ala salatihim yuhafizun ndax borom subhanahu wa taala dafa tudd juróom-ñeenti melo mooy ay attributs ay qualificatifs ay valeurs ay vertus yoo xamante ne julli la ko ubbee alladhina hum ala salatihim da'imun ba pare julli la ko tëje walladina hum ala salatihim yuhaafizun ngir wane ne julli moom moo nekk ci centre loolu yëpp moo tax maa ngi fàttaliku daaw ci jotaay yi bi ñu yegsee ci aaya bu njëkk bi eh, bay wax al musallin illa al musallin di ci wax eh, am na ci wàll boobu bañ ci yegsee dañ ne eskay ñun wolof donte bariwul lu ñuy wax loolu ndax fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa waaye est-ce que ñun wolof bi nga xamante ne dañoo jël baatu muslim maanaam al mu'minul muqin ñu tuddee ko jullit mu nek baat bo xamantene dafa top carrément dafa top vraiment ci lu mat sëkk saar bi li nga xamantene non lay leralé mbir yi almusallin mooy almusalluun mooy jullit ñi moy ñi nga xamantene ne jokk ci seen borom subhanahu wa taala dañoo connecté wu ci seen borom subhanahu wa taala voilà dañoo am connexion seen diggante ak borom subhanahu wa taala loolu moom al musalli mooy jullikat yi ñi nga xamante ne seen julli dafa sax yamuñu rek bu nekkee ci jàkka yi wala bu juróomi waxtu yi amee wala yu mel noonu déedéet ñoom seen julli dafa sax ndax jàpp nañ ne suuf sépp comme li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura suuf sépp dañ ma koo defal mu nekk jàkka maanaam fu mu mën a jullee sujjóotukaay ba pare mu nekk lu laab tey laabalaate moo tax fu ñu mën a nekk ci kaw suuf si comme li alquran wax inna ardi wasi'a inna ardallahi wa alam takun ardullahi wasi'a suufa si yàlla si dafa yaatu yaatu na waaye lépp daf ko askanale buur yàlla subhaanahu wa kon fépp bërëb bépp bërëb bi buur yàlla la subhaanahu wa taala te bindul doomu aadama lu dul ngir mu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun qul innamaa umirtu an a'buda allaha mukhlishan lahu diin wa umirtu li an akuna awwalal muslimiin qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin laa shariika lahu wa bidhaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin wa maa umiruu illaa liya'budu allaha mukhlishiina lahu diina hunafaa ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا إلا الله وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه etc etc et cetera yeneen ay yoo xamante ni yëpp ñooy dem ci benn di wax do ben mbir maanaa bi di dem ci ben sens moy ne amul len luñu fi def dara indi wuñu fi ñun fi ñu ne nii dara wuñu fi te dara ba wuñu fi lu jaamu yàlla borom subhanahu wa ta'ala loolu dong lañu fi indi kon fépp fu nit ki ne connexion boobu jokko gog mom lay teyi digganteem ak borom subhanahu wa ta'ala ñooñu ñooy vrai jullikat yi ñoo ñooy jullit daa ima ci biir loolu biñ ci tollee tamit gisoon nañ li aju ci wàllu sóobu ci yoonu yàlla euh, waxoon nañ ci cosaan gi ak mbir yi ci wërwërloo muy tasawuf ak li nga xamante ne moo ci aju ngir ne day sellal bakkanu doomu aadama ci problème yi nga xamante ne moom la ñuy wax lañ doon wax ak yeneen muy bokkaaleeg euh, jikko yu ñëw yëpp voilà ñàkk yaakaar yàlla ak xeeb sa boppa ak xeeb doomu aadama yi tamit xeeb mbindeef yi ak yeneen jikko yu ñëw yëpp daal ci gàttal yëpp te ñuy seen place nekk ci xol te foofu tamit la bakkan ne xol maanaam bakkan place la am maanaam bureau ci xol la ne foofu la am siège looloo tax lu affecté bakkan rek affecté xol lu affecté bakkan rek affecté xol jikko yooyu wala psychologie parfois boobu. Euh, d'ailleurs ñoom ñooy tax léeg-léeg nit naa nekk na fekk par exemple nekk naa fekk problème psychologique bu rëy la parce que naa fekk mooy lan mooy da ngay wane mbir moo xam ne nekk nekkul ci yow maanaam da ngay wane ci biti dangaa gëm dangaa ngaa dëggu yow dangaa nangu fekk li nga nëpp ci biir moom mooy kiifir loolu mooy naa fekk naka noonu jikko yi ñu ko ràññeet la yépp tamit boo ko seetloo dëgg-dëgg da ngay gis ne problème psychologique la koo xam ne saa yu waxee il faut mu ci lu ci bokkul foog mu wax lu dëgg iza hadatha kaza koo xamante ne saa yoo ko joxee rendez-vous mu amul daal joomu joom parce que loolu joom la parce que maanaam di teew rendez-vous di di di di di di di di di di ko matal et que ngay ngay ngay teew heure di teew tous les jours maanaam de manière ponctuelle maanaam saa yoo amee rendez-vous kay doomu aadama loolu jom psychologie la tamit maanaam façon mentalité la aussi voilà mais jàpp ne non garaawul ah non ay foofu boo ko demee tamit nangam nangam ku nekk def noonu dëkk bi yàqu parce que nit ñi ñoo yàqu zahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas voilà yàqute gi dafa tasaaroo ci dafa feeñ bokk ci jiiri ji ak ci géej gi ci sababu bi nga xamante ne moom la doomu aadama yi def euh, li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un bu ko defee ñu mosal leen lenn ci li nga xamante ne moom mooy sababu la ñu def lenn ci loolu bu ko defee xanaa dinañ dellu si ni ko borom subhaanahu wa ta'aala waxee maanaam ñi am jom jooju maanaam nga gis eh, même eh, iza ahlata kadhaba wa iza wa'ada akhlafa iza tumina xaana mooy naafeq yi maanaam psychologie jom boobu la amul mooy iza tumina xaana saa yoo ko wóoloo saa yoo ko wóoloo saa yuñ ko ba dénk ko wala yooyu dinañ ci ñëw incha allah walladhina ci walladhina hum bi amaanatihim wa ahdihim ci ñëw incha allah ci wàllu boobu mais daal kóolute kóllëre yooyu yëpp moom da gis day wor voilà day wor parce que psychologiquement il n'est pas solide pour mën a euh, xeex ak bakkanam maanaam pour pour mën a nekk nit ku correct loolu amul amul psychologie boobu amul jom jooju waaye dafa am beneen affaire bu mu am mooy ci beneen xadis bi mu ne wa ida xaasama fajara su xulóowee mu werantee rek da ngay gis day jéggi dayoo maanaam fajara mooy day déraper dégg day déraper daal di def lu fës lu yéeme lu lu doy waar wala mu wax ko parce euh, xam nga lu tax parce que amul. manam mom mom jàpp na ni su maanaam dafa ga abattre le fait que muy abattre non bu ki rek commencer werante bi wala tang rek rek mu commencer rek mu commencer saga commencer euh xaste commencer wax loolu deug manam di sos voilà motax en général na fekk kum mu de manière générale nit ku dëgguwul kum mu mo lay gagner mo lay gagner c'est pas parce que dafa dëgër ay argument mais c'est parce que da dul xam nan ngay waxee ku mel noonu parce que yow dafa am loo xamante ne sa ay valeur du la ko may alors que ñoom seen valeur da leen koy may maanaam seen ñàkk valeur da leen koy may ñoom da leen koy permettre parce que dañu gaaw a dañu gaaw a génn ci trajectoire bi normal bi dañ ci gaaw a génn mooy ida xaw sama fajara kon euh, nga gis borom subhanahu wa ta'ala ñu connecté wu ci moom rek ñoom ñoo mucc ci problème yi yëpp et loolu waxoon nañ ci wàllu tasawuf euh, ba wax tamit li nga xamante ne moom mooy cosaanam waxoon nañ li aju woon ci loolu ci zikar yi ñuy joxe wérdi yi ndigal yi ak yu mel noonu yëpp yooyu tamit taxawoon nañ ci su ma juumul taxaw nañ ci ñaar ba jëmmuñ ba ñetti jotaay yoo xamante ne dañ doon leeral point yooyu bu ko defee ñu xam ne tasawuf jëmmi sunna la rek comme ni nga xamantene nonu noonu waxe fiqh fiqh ni ñuy waxee fiqh ak sharia manam ñu bokk même bir manam moy yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci al islam moy jëf yi nga xamantene manam moy bo xolé ci al islam la ak ay ay ramification ak ay caram loolu xam-xam bi leen di topato mom lañ nane fiqh moom la ñu wax fiq iman muy ngëm al iman ak al aqida ak ta ak tawxid dañ koy wax yooyu yëpp ilmul kalaam fiqhul akbar muy ngëm mooy donc aqida aqida pas-pas xam-xam yi aju ci loolu ni ñu ko tege mu nekk xam-xam yu ñu jàngale yu ñuy jàngale ak tawxid ak yu mel noonu te mu aju ci iman dégg noonu dong la tamit maanaam comme niñ ko waxee ci iman léegi ci ak islam noonu dong la tasawuf nekkee xam-xam bi nga xam ne moom moo aju ci ihsaan jeex na ni ñuy waxee sharia noonu dong la ñuy waxee xaqiqa te loolu xaqiqa moom mooy ihsaan bi nu mu demee et que sharia ak xaqiqa sharia mooy li ñuy mooy yoon bi ñu tëral ñu di ko appliquer di ko jëfe comme ni ko diine bëggi comme ni nga xam ne noonu la ko alquran jàngale ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy sharia yoon bi nga xam ne moom lañu indi ngir ñu jaar ci loolu nag boo xoolee sharia dafay feeñ moo tax moo boo seetloo bu ñuy wax sharia dama ko bëgg a jàng maanaam fiqh ngay jàng en réalité soo ko seetloo fiqh ngay jàng même bu fekkente ne aqida mën na ci dugg mais fiqh pour la plupart moom la ñuy jàng xaqiqa mooy li aju ci tasawuf mu am ñaari xeetu xaqiqa xaqiqa bi nga xamante ne dafa aju ci suluk mooy sóobuwaay yi yi tax ba nit ki jikkoom yi sell rafet et cetera ak xaqaayiq yi nga xamante ne dañoo aju ci maarif yi mooy xam-xam yu xóot yi nga xamante ne mooy tax nga gën a xam borom subhaanahu ak aju ci nekkati ci mbindee fi maanaam borom subhaanahu wa taala ay turam ak ay meloom loolu mooy li nga xamante ne mooy tax ba nit ki di dund sharia c'est-à-dire que sharia dafay jàngale. jëf yi xaqiqa di la dunduloo mbir mi ci sa biir nga réaliser ko di ci di dugg ci ay géeji leer ak ay géeji mbóot mooy secret ay géeji xam-xam yuy tax nga gën a jege sa borom subhaanahu wa ta'ala yoo xamante ne looy gën di jege sa borom di ko gën a xam moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne axwafukum billahi wa a'lamukum bihi ana sallallahu alayhi wasallam ci beneen riwaaya a'rafukum bi xadis mi ngi ci ki leen gën a xam yàlla ki leen gën a ragal yàlla gën a ci yàlla te gën leen ko xam mooy man sallallahu alayhi wa kon xam-xam googu loolu xaqiqa la maanaam c'est la réalité c'est-à-dire c'est la vérité absolue mooy dëgg gi li sax moo tax dëgg googu la li aju ci buur yàlla subhaanahu wa taala ak ay turam ak ay melo ak màggaayam ak li ci aju loolu ciy gën di xuus parce que da nga nekk di mettre en pratique sa charia ngay gën di réaliser loolu maanaam réalisation boobu nag dafa compliqué maanaam du lu yomb du lu ñëpp mën a am facilement yeneen bi sallallahu alayhi wasallam alquran mi ngi ñuy mi ngi wax ne daf koy def manam yu'allimuhum alkitaba wal hikmata na eh eh yatlu alayhim ayati llahi wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wala alquran mi ngi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day jàngal nit ñi day jàngal nit ñi téré di leen yéggé ci yàlla day leen di eh wa yuzakkihim da leen di sellal moy da leen di tarbiyah da leen di yar gis nga seen bakkan moo tax tas tazkiyatu nufus la ñuy wax mooy bakkan yi ñoom ñooy sell ñoom la ñuy laabal dinañ ci ñëw incha allah ci wàllu azaka parce que ci buntu azaka lañ tolloo mais dinañ ci ñëw incha allah relation bi mu am ak tazkiya boobu euh, nga gis borom subhaanahu wa di wax ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne yuallimuhumul kitaaba wal xikma daf leen di jàngal téere bi waaye di leen jàngal xikma te mooy xam-xam yi xóot yi nga xam ne ñoo làmboo téere bi te li ci gën a fës te gën cee màgg mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon euh, loolu yenente bi sallallahu alayhi wa gis noonu lay def di tarbiya di taskiya di tarqiya léegi nag loolu noonu def gi maam loolu la doon def ak saxaaba yi radiyallahu anhum te bàyyil nañu ko fi de manière générale mais dafa am aussi euh, particulièrement aussi comme ni ko ñëpp remarqué ci seen bopp remarqué ko ci lépp mooy ne jamono ji il faut que quand même jamono joone dafa am ay mbir yu renouvelé wu maanaam événement yi dañuy bees mbir yi dañuy bees donc day laaj xam-xam bu aju ci islam xam-xam bu aju ci iman mais ak xam-xam bu aju ci ihsan xam-xam boobu aju ci ihsan nag bu may mettre en pratique xam-xam bi aju ci islam ak iman te moom mooy sharia bi ak aqida bi mais réaliser ko ci xaqiqa bi ihsan bi dafay yoon bi may tax ba sumay appliquer sharia ak sama pas-pas bu wér nga xam ne mooy base bi aqida bi may appliquer charia bi dafa am pour mu mën a dund xaqiqa bi ñëpp xam nañ ne du ñëpp ko mën te ñëpp amuñu ko maanaam du ñëpp ngay gis maanaam ñu bari jullit ñu majorité jullit ñi nga xamante ne dañ naan ñoom multazim lan comme ni ko expression yi ñu koy wax naan temps yi damay sellal comme ni ko gars yi di wax ñooñu naan ñoom dañuy sellal ñoom ci seen bopp dañuy remarquer ci seen biir dañuy mën a constater ci seen biir ay jikko yu ñaaw yenn ku yoo xam ne neexu leen yenn jëf ak doxalin yoo xam ne vraiment bëgguñu ko ay yëg-yëg ci seen xol yoo xam ne amul bëgguñu ko ba pare connexion maanaam daa iman ñu am benn connexion bu am seen diggante ak seen borom subhanahu wa ta'ala gis nañ ñi vraiment loolu daf leen a manqué et que dafa am benn xeet boo xamante ne benn yëg-yëg boo xamante ne dañuy bëgg léeg-léeg ñu yegg ci ah léeg-léeg ñu dund ko ñu dund yenn yëg-yëg sens sensation yu graw seen digganteeg seen bon subhanahu wa ta'ala mais sauf que du permanent day gaaw a dagg te du te dañuy bëgg maanaam yooyu yëpp dañ koy constater mais nag pour nga mën nag léegi dépasser niveau yooyu ba pare yegg ci niveau yi nga xamante ne loolu ak mayuk yàlla la ci mbindeef yi muy mën di maanaam ngay xuus ci géej yi leeri alquran ak sunna di ci féey nu mu la neexee te doo ci lapp loolu li la koy may li la ciy jàppale loolu moom la ñuy tuddee tariqa ba nga xamante ne su may dund sharia damay en même temps damay mën a am lu ñu tuddee xaqiqa maanaam mooy réalisation boobu dama koy mën a am tariqa mooy voie mooy yoon bi may may mu mën a réaliser loolu loolu la loolu tamit taxawoon nañ ci leeraloon nañ li ci aju ci ni borom subhaanahu wa ta'aala leeralee ci aay yooyu alladiina hum alaa salaatihim daa'imuun ñi ngi yemoon ci aaya bi naan walladiina fii amwaalihim haqqun ma'luumun lis-saa'ili wal mahruum ak ñi nga xamante ne ñoom ci seen alal day am na cër bu ñu xam haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji laaj maanaam kuy ñaan ku yalwaat wal mahrum ak ki nga xam ne dañ koo xañ ki nga xam ne dañ koo xañ manam amul ñaanul kooku du ñaan mais dafa ndóol wala bu ndóolul ñàkk na te soxla na euh, gisoon nañ ci jotaay yi weesu lu aju woon ci wàllu azaka euh, gisoon nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi jël azaka maanaam ñi ah, subhaanallah ñiy joxe azaka ak lan moom mooy seen charte yi nga xamante ne am na yoo xam dañ ci dëpp am na yu ci wuute bokk na ci ne fokk nga nekk jullit muslim ba pare xurru nekk gor pare eh, baalix loolu ñëpp dëppoo nañ ci mais ndax maanaam mooy nga nekk ko majeur mais ndax xale ak koo xamante ne xelam dafa des est que ñooñu dinañ joxe azaka wuute yi amoon nañ ci gisoon nañ ni xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañ koy dàq ne du joxe azaka mais jumhur ñoom dañuy sii day joxe azaka te loolu incha allah mooy li wér comme nañ ko gisi woon di gën a dëgër en tout cas gisoon nañ tamit ne fokk nga moom lu ñu tuddee milkul taam maanaam ma ma maalikun de nisaab maanaam nga am lu ñu tuddee nisaab mais ma maanaam mooy alal joo xamante ne nisaab la nisaab nag ci lu nekk ak la mu doon mais nga am ko am gu mat sëkk yooyu gisoon nañ ko euh, gisoon nañ tamit ci alal rek ci jëmmi boppam defoon nañ ci mën naa tuddee lool exposé benn jàngat taxaw seetlu bu yaatu ci alal xeetu alal yi lan mooy alal njariñ gi mu am doole gi ko yàlla may borom subhanahu wa ban relation lu jullit war a am ak alal et cetera loolu taxawoon nañ ci ci suma juumul ñaar ba ñetti jotaay yoo xam te ne ci alal lañ doon wax ak lii wërwërloo ci alal euh, gisoon nañ tamit xeeti azaka yi ñëpp maanaam yi ñuy joxe mooy xeet yëpp yi nga xam ne moom la ñuy joxe gisoon nañ ñu tuddee mooy euh, an naqda an naqdaani mooy wala al asmaan mooy mooy ci al daan mooy wurus ak xaalis gisoon nañ ko ak luy taxaw seen taxawaay euh, gisoon nañ azakay mbay mooy alxars wa ziraa mbay meeg euh, gàncax gi li nga xamante ne moom lañ ciy génne azaka euh, gisoon nañ li nga xamante ne moom moo aju ci bahimatul an'am muy jur gi nga xamante ne ci ñoom dañuy génne azaka gisoon nañ al ma'adin war rikaas mooy mbell yi ak li nga xamante ne ndel yi moom mooy les mines ak li nga xamante ne ay trésor la yoo xam ne dañ koy for wala yu mel noonu alal jiñ ciy génne euh, te euh, euh, gisoon nañ kon wala ah, at tijaar al urud rahmanir rahim